daara ñun lu ñu am alxuraanul karim la ñun nu ñu mel Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo xoolee ci gëm sa bopp dañ ne la fileeg daara ji fileeg daara yi fileeg këru diine yi joxuñu leen seen cër ci réew mi li ñu bëgg duñu ko am mukk parce que man li ma gëm te moo nekk ci programme boobu ñu la jox bu fekkee ne liir nga ko dañu ne daara yi dafa jot ñu cëral leen cër bi nga xam ne moom la ñu cëral njàng ci boppam dugal leen nag ci biir njàng meeg njàngale mi dégg léegi ma ne la jot na Sénégal am université franco arab parce que dañuy jël suñuy doom di leen yóbbu bitim réew ñuy dem di jàngi fu mel ni Soudan fu mel ni Égypte fu mel ni Caire di fa am ay jafe-jafe yu nekk te boroom xam-xam yaa ngi fii ci réew mi professeur ya leen di jàngal foofu ca bitim réew am nañu boroom xam-xam yu toll noonu nekk fii ci réew mi kon problème bi du moderniser daara c'est jox daara cëram waaye du moderniser ko modernisation luy ñëw la par force kon li ma gëm man mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi di sëriñu daara yi jot nañu encadrer leen teg ci yoon ay disposition yoo xam ne dootul tax ku nekk ku jóg rek am daara waaye ñu jaareele ko ci ni ma ko waxee ci suñu programme benn haut conseil boo xam ne day gérer loolu lépp loolu day wane ne dañ leen di jox seen cër lu jëm ci mbirum boroom ñaari tur yooyu ngay wax dama ne benn sax ëpp na ci réew benn ëpp na ci réew waxu malaat nag nga naan dañu leen di jox ay droit droit lan droit fan droit ci ñan droit ak kan waaye ma ne benn ëpp na ci réew waay waxu malaat nag ñu naan dañ leen di joxe droit fuñ ñu leen di joxe droit alors j'interpelle le président Macky Sall pour que mu jàkkaarloog sénégalais yi wax leen dëgg ñuy dégg ne mbirum góor jigéen tifaaxan ken du légaliser ci Sénégal mënta nek parce que lolu buñ ci yeggee ñun suñu bakkan yii danañ leen ko jox inshallah allahu lu jëm nak ci walu justice man dama gëm né une justice elle n'est pas parfaite waye ñi wara yëngatu ci justice ñoy jël sen indépendance bop bopp dans na programme dañu pour l'indépendance de la justice la justice mom tout le président de la république di que chef supérieur président conseil supérieur de la magistrature Nous de dañ mu Nous ci suñu programme nous ñun ci un biir programme yamuñu ci loolu de dañu yegg ba ci ne lépp programme. carrière magistrat dañu koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy cour suprême ñoom ñoo koy gérer kon encore une fois réew li koy nërmeel bu fekkee ne boo sàccee ginaar ñu tëj la fukki at waaye ki sàcc fukki milliards ñu bàyyi ko mu ñibbi këram loolu day indi injustice ci réew day indi frustration ci réew te mën naa tasum réew kon loolu ñun sénégalais yi danañ ci taxaw xeex ko l'indépendance de la magistrature lu mën a la te loolu it lu gëm la mon frère lu gëm la merci